Macky Sall. T'as offert, t'as offert Ouais, là, t'as offert, t'as offert Papis Diop. Ouais, t'as offert, t'as offert Mère Papis Diop. Au côté 20 millions et maintenant 20 millions beaucoup multipliés par 842 maisons. seize milliards yi passé na ko fii Tawfekh bi ñu toog nii muy fukki milliards ak juróom-benn yu ñuy président Macky Sall may kon Madické jërëjëf monsieur le ministre ñun waa Tawfekh ñàgg ñu gore lañu président Macky Sall du gëstu dafa ñu teranga bi ñu koy won leneen waaye loolu tamit ñaan naa ko sama askan ñaan naa ko njabu Tawfekh nañu sargal président Macky Sall fal ko premier tour. am nga chance <clears throat> lu tax nga am chance mooy da nga am taw féex. da ngeen euh, nekkoon yéen ci taw jaaxle ak inondation président Macky Sall indi leen taw je suis persuadé. que loolu dinaa ko président.

prétexte la woon rek ñu teg ko seen bopp mais actuellement l' affaire est réglée kon nag fii 100 pour 100 moo fa am fii normalement sax waru leen nangu opposition beneen candidat ñëw di campagne. sincèrement parlé yéen yéen les délégués de quartier les notables les jeunes les femmes mais waru leen nangu benn. inondation mu jël leen indi sax mu ne may naa leen kër mais quand même ça c'est extraordinaire man de su ma doon yéen benn candidat bu ñëw man la eh eh yow yéen nag da ngeen ñoo bañ da ngeen ñoo bañ bu doon di baax lay defaral sa këyit yow nga ñëw pour kooku jóge fi mais yow yaa fay jóge fii moom titre foncier président Macky Sall kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant dimanche soreetul réglage dimanche ñu voté ma ne bu dimanche ci ngoon vive Macky Sall fii 100 pour cent rek man nag man nag tawfeex vive la commune de Tivaouane Peulh-Niasse vive le président Macky Sall en avant pour une victoire 100 pour cent tawfeex le dimanche 24 février